وتسليم على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 wooteel 77 677 77 08. jërëjëf. di leen jaajëfalaat bu baax a baax saa su ne ñi nga xam ni yéen ñuy topp à travers Talibé TV waaye rawatina yéen ñi nga xam ni yéen ñuy topp seen émission bopp gi macha allah ngeen xam ko ñu yàgg koo def di ci dalal borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ne ci yoon wi waaye tamit ki ci gën a ràññiku wala bokk na ci ñi ci gën a ràññiku di universel Serigne Salihou Samb universel maa ngi lay nuyu la bàyyi nga sàppanteeg soppe yi gars nam woon nan la nam woon nan jotaay bi. waaw ah, jërëjëf ci bëgg Bamba. أحسن الباخي من الشيطان في كل مجلس وفي الأوتان عبادة ابتدحت بسم الله وهو كفاني قوي الملاحي وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واسكتهم مقدمات ربيا فاصرح بها صدور من تعلموا sharaxan bihi laa taxtarihim salaam barke Sëriñ Tuubaa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki réew mi bitim réew mbooleem ñuy topp seen seen bu mag bii di Talibe TV ñoo ngi leen di waxati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi ñaanal Cheikh Modou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ba yeggale naar yi mu naar la Serigne Touba ci toolu islam bi yëpp. ànd ko njaboot gi ak taalibe yi. noonu lañ ko ñaanal yi képp ku toog jotaay yëpp lislaam ci réew mi. ak yàgg feeg wér ak sa njaboot ak say taalibe. noonu lañ ko ñaanal itam Soxna Aida Saliou moom Serigne Bekk Thioune. yàlla na fi yàgg tànn tuuti. amiin yeggale ay naaram mu bëgg Bàmba maa ngi lay nuyu di la fay am nuyoo. tey bëggaat lool ci bokkateeg yow ab jotaay. yow ak suñu mbokkum taalib bu baax mii di seex ngeen di ànd. mooy taxaw mbir mi taxawaay bu rafet bii. Mm-hmm. cuun ti nañ lool ci bokkatee yow jotaay ndax mbokk taalib yi kenn waxtu wu ne. ñoo ngi may jàmbar rek suñu jotaay yi. man leen wallaay ngeen ko nammee rek lan ko nammee. waaye xëy na man cuun yëpp yitte yi jàpp. yitte yi yitte yi waaye santaat nañ yàlla. ci tawfeex bi ma mayaat. bëgg bàmba bëgg bàmba turu neex. <laughs> <laughs> ndax bëgg ndom daal moo mat a def ndax ñu ko yàlla baaxee amin yaa eh, dëgëral ko ci suñu xol nga saxal ko ci ndax sëñ tubaa nee na bëgg ko gu wér day mandargaal ñett iman gu wér l'islam gu wér l'ihsan gu wér te loolu mooy diine ju mat alhamdulillah ku ne bëgg na sëriñ tubaa te mu wér rek diine man hmm. na hmm. moo tax mu ne man amanu hmm. wa aslamu wa ahsanu ahibati fi xeyri rabbin yafsin eh. ñi am iman ak l'islam ak l'ihsan ju yàlla nangu ñëpp samay soppe leen dégg nga ñoo sa sa tur yi kaw tànn kon nag bëgg ñoom ñooy fay nuyoo di leen nuyu tey nuyu jotaay wax dëgg yàlla bu nangu lool am na benn mbokk bi sax boo xam ne jëriñ kala yaakaar naa toll na seen nuuru dafa dox ba dajeeg man jàpp li ma ana jotaay yeeg sëñ Saaliku Samb barke sëñ Tuubaa dox xam nga xam nga ma ko sax yéen sama kan waaw jëriñ kara bu baax wallaahi wallaahi ma nuy waale Cheikh Amadou Kara ah, waaw tërëm bu baax yàgg na yàgg tey amiin yaa rabbi moom day sunu sëriñ di sunu soppi day sunu xarit di sunu wér di lépp ci noonu ndeysaan te bëgg sëñ Tuubaa bëgg bëgg fa ko takk wees na ko wallaahi weer yi ma takk rek moo ma ko jox dégg waaw ah, loolu rek doy na mandarga wallaahi bëgg sëñ Tuubaa jërëm ak yeneen yàlla na fi yàgg tey loolu ñu waxtaanee sëñ Tuubaa ñëpp moo leen war a teral moom noonu la jàpp moom moom loolu la jàpp yàlla na fi yàgg tey amiin barke sëñ Tuubaa wala njaboot ga ñu ko koy ñaanal man Cheikh Modou macha allah tey nag ñuy waxtaanee <clears throat> comme ni ngeen ko xamee jotaay bi wax fa dëgg yàlla saa su ne Serigne Saliou xam-xam moo koy lal mhm. saa su ne jotaay bi taalibe moo koy lal mhm. waaye tey ñu waxtaanee côté boo xam ne ci yoon yi wax fa dëgg yàlla côté mhm. te ñun murit yëpp ñu man ko xaw waaye ñun gëm nañ ko muy kafaaniyal baax yi mamata sarmada wa bi baqa i yasufu ahmada muy bayit bu nu miin sëriñ bay boobu ñuy dégg junj yi ñu ni sëñ Tuubaa du fi jóg faatuwul sëñ Tuubaa mi ngi fii ci suñu biir da dégg sax ku naan la gis naa sëñ Tuubaa nangam. Mm. sëñ Muntaxaa bu yàggul nee gis naa ko Poroxaan. Mm. waaye mu mel tey ci lii lu lu mën a weddi loolu ndax ñoo ngi dem di ci jumaa ji. Mm. bëgg saxal lu wuteeg loolu. tey lan moo mën a expliquer loolu sëriñ Saliou. ñooñu bokk ci waxam yu rëy yi. te moom waxam yëpp rëy tey dëgg. kafaani yàlla baaxil mamaata sarmada wa bi baqaaiya yasurru ahmada hmm. moom mi ngi ko wax ci xaatimatu munaajaati bi la xatti hmm. muy li mu jëbind 1927 hmm. ñu noppi ko gis ci saayir boo ko doon firi ci kaw li mu wax mooy yàlla mi aji sax gi te du fi jub fegal na ma dee man Sëriñ Tuubaa fii ba faaw du ma faatu fi lay nekk dama du ma faatu damay dund te du ma faatu loolu nag bu yéen yéen a ma ko defal du it maa ko defal sama bopp yàlla mi rey ku dee mooy ke ma may dund gudd guddatul jeex. al yi albaax yi yàlla mi fiy sax. Hmm. moo def man Serigne Touba du ma faatu. Hmm. sax gi ma fiy sax nag. Hmm. def na ko muy ndëgum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. bayit bi loolu la ca wax. Eh, wax ne du faatu nag moom Serigne Touba lu bari lu muy wax la. ci façon waxin yu bari yoo xam ne bokk max ci même xasida gi sax da ci gis lu mel lam tanhu nii muqaddamatul mawti wa qad rafa'tu bil baqaa'i sawti loolu rek lay expliqué ba Euh, lu dul mbind mi sax da nga ko gis ci yeneen xasida lu mel ne basharani baaxi bi an nii baaxi mhm. wa qaada lii ma waaxi basu baaxi mhm. yàlla mi fii sax béggale na ma ni ku fii sax nga rek moom mi nga xam ne moom moo matal may ña jiitu woon ñëpp mhm. même xasida gi ci xaatimatu da ci gisaat tur si xanil mooti baqaa ullaahi abu xaani yàllaahu li wàccillaahi yàlla dox na sama digg ak dee saxam nga li fii ak moo ngi fi rek maa ngi fi daf ma fee saxal ngir jëmmi yàlla. nga dem ma ayaati la ayaati laahi allah wa daaxila jiraanu boo gisee ne mu bari lu mu koy wax. moo lay xam ne du xaal ma la. xaal mooy lu la dikkal. benn yoon benn yoon nga di ko wax man naa am sax biñ koy wax danga caa toll. waaye après wax ga nekkatoo ca. Hmm. moo tax léegi-léegi wàllu yam daan dal ban ca tollee wax ko. Hmm. buñ ko weesoo buñ leen waxee yéen a ko wax ñu ne ko wax. dañ koy weddi dañ koy weddi. Hmm. su ma ko waxee day rey lii man jamono jon koy wax du ñoom. Mm-hmm. dañoo nekkoon ci maqaama mun moomut. Mm-hmm. ki nga tungam. Mm-hmm. dana séen loo xam ni du am njoolaayam. waaw ah balaa xam ne am njoolaayam ñu wàcc ko. suñ ko wàccee mënut fi koo séen. loolu ñu tuddee xaal. waaye boo gisee mu di ko wax kara di ko répété lu bari ci mbind yu bokkul. da ngay xam ne Sëñ Tuubaa lii xaal maqaama la mooy station bu taxaw la mooy lu wér la diggam boromam. kon loolu waxtaane ko jaarul ñu ndax day bari ñu koy déngal. ñoo xam ni it buñ ko dee déngal dañuy sukkandikoo alxuraan ak sunna naan ku dul faatu amul. Mhm. kon ñemee wax ne duma faatu te yàlla wax ne bakkan ñëppay faatu. Mhm. beneen bi ki topp sa léeg-léeg ne ndax seen bopp ngeen di def. Mhm. ndax ki ngeen ne du ko faatu wutal ngeen ko bàmmeel bu ngeen koy siyaaree. tout à fait kon yéen da ngeen di caaxaan nangam ak nangam. li ci mitti nag. mooy léeg-léeg sax nga gis koo xam ne ku gëm Serigne Touba la. di ab taalibeem. waaye waxi ñooñu di dajjee ka dindi. léeg-léeg ñu influencé ko ba indi ci ab xolam sikk sàkk. mu yóbbaale ko ba léeg-léeg sax day am ak sikk sàkk ci wax jooju mm, mm. ba ñàkk caa am yaqiin mm. loolu nag moo dansiré lool fi may tàmbalee waxtaan wi nag day jëm ci suñu mbokk taalib yooyu ma bëgg sunu mbokk taalib yi ñu bokkal Serigne Touba nanu xam ni Serigne Touba lépp lu mu wax dëgg la lépp lu mu jëf dëgg la lépp lu mu bind dëgg la donte xamoo ni mu nekkee dëgg sax dëggal ko te am ci yaqiin yow te xam ni du wuteeg alxuraan du wuteeg sunna doonte xamoo ko bu ci kenn am complexe loolu ndax liy taxaw wax safaanub dëgg bànneexu bakkan la te Serigne Touba nee na bànneexu bakkanam yàlla da ko ko connecteel ak connexion dëggam gi dëggam gi moom yàlla la ñu connecté bànneexu bakkanum Serigne Touba ba moom mënatut a bëgg lu dul dëgg mënatut a jëf lu dul dëgg mënatut a wax lu dul dëgg mënu ko bind connexion boobu yi da koo lëkkaleeg sax ci liggéey yonent bi lépp lu muy wax baa ma di ko def baa ma di ko jëf dëggu yàlla gi lay tegtale mm-hmm. waaye liggéey yonent bi lay tegtale hawaa nan taxaa mm-hmm. lil xaq mm-hmm. wal xaqu diinu naa bi iqdaari siirus diin hadaa kulla mursali te ko kooku mënta génn dëgg Sëriñ Tuubaa lépp luy xeetu nee na ki caaxaan suñu borom moo ko ca génne ba du ko laal ba noppi saxal ko ci dëgg ak gëm yàlla bu sax ndax lu mu wax lu mu bind lu mu def dëgg la te imaan la lu wuteeg lu yàlla bëggul hmm. xarajtu bi fadlillaahi hmm. min kulli baatilin ilal xaqi wal imaani billaahi yarsaxul hmm. Sëriñ tubaa lépp lu mu bind ci liggam ak borom moom bul ca am sikk sàkk ndax moom du demee njort du demee sikk yaqin na boo ko xamee boo xam yaqiini yaqiini shakka في السر والحلال وليقاد ربي بالنبي البشرى والأمل ما تيو طالب بي نانا أكرمني ربي بأن من رافقني لابد أن يلقى الأمل يالا دما تيرالي موم مي سان بروم سيغ تباي واخ كيب كو اندك مان دي سما طالب مونتا ñak nga dajé koulute seigne touba da ngay am ci mom yaqi ding koy wolu kon bu ñu kafalé ci ay wax bu la wori ne seigne bi ko bind moko wax bo xamul ñu démé sax gëm ko bu la kenn yobale ci yoy loolu la bëggona tambalé mhm. ginnaaw loolu nag firi baat bi firi ba bayit bi ci ni Sëñ Tuubaa ne da koy faatu kafaan yal baaxin mamaata sàmbada faaw dafay sax du fi jóg saxam gi bi baqa i yasuru ahmada day bégal yonente bi nan lañ man a déggee ñàkk faatu Sëriñ Tuubaa googi déggin woo xam ni day dëppook alxuraan dëppoo ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Sëriñ Tuubaa lépp lu mu wax juyewut ak alxuraan juyewut ak sunna yaa koy mën a xam wala nga bañ koo xam banaytu amriya bil kitaabi wal xadiis hmm. habdan xadiman haisan min al xabiis sama mbir yëpp dama ko tabax ci alxuraan ak sunna hmm. jaamu yàlla laa ba sax ci liggéeyal yonent bi lépp luy ab safaan lu nekk du ma jege kon loolu mooy mbirum Sëriñ Tuubaa hmm. léegi nag nan nañ ko mën a déggee ba lu ñu caa ñëw ci maanaam naam ko mën a jox daa am la mu bëgg njëkk a tàmbalee bëgg bëgg mooy gis nga saxal ci diine ak ak ak dindi ci. Hmm. di ñëpp ko war a def. bari na problème yoo xam ne xam nga lu ko jur. Hmm. léeg nga gis koo xam ne day toog di saxal. Hmm. ak a dindi ci aaya alxuraan yi nangam du ni. wala mu di ko jéem a def te di ko sukkandikoo addi si yonente bi wala muy jéem a dajji sax mbindum gaa ñu baax ñi mag ñi. lu mel ne mbindum sëriñ bi. te moom mi nga xam ne moo toog di ko jéem a def naan ni dëppawut ak alxuraan dëppawut ak sunna nangam ak nangam lii du diine hmm. moom l'islam jox ko parole jox ko kàddu validé wu ko pour moom mu mën a dindi baa mu saxal autorise l'islam autorisé wu ko pour mu wax moom autorisé guñ ko pour mu wax te loolu moo garaaw xam nga ba ñu waxtaanee dax ma wax naa la ni la jëm mi dax wa rek du ñëpp ko war a def hmm. na aaya bi néewul na ñëpp jóg hmm. dañu wal takun minkum أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون na am ci yéen ñu jub def taxaw bi xam nga loolu la ñu waxtaanee woon tout à fait même taxaw bi atte boobu mu am saxal ci diine ji baa nga di ci dàq atte boobu la am suñu borom neen du ñëpp am valable pour war ko def bari na kuy wër di wax naan min ni mii li seen sëriñ bi wax ay nit nefa di waranteeg ñoom te xamul ne moom moomee l'islam da ko autorisé wul ci muy daj ak di saxal ndax daj ak saxal la bëgg alxuraan dani le minimum al aqallu li gën a néew ñeenti étape faaw nga jéggi ko. ñeenti étape ñeenti étape yoo le minimum sañoo di masakal saxal naan lii wér na ci diine wéru ci ñeent. ñeenti étape. bi ki njëkk. Hmm. mooy faaw da ngay jàng waaye jàng doo yëpp de. Hmm. lépp naan wax ne ko alxuraan sunna hmm. boo jàngee ba sam ñàng yegg yonent bi nee te yëpp da koy boole ci ay aaya nee na ginnaaw ñàng mi mooy école bu bi na ku fa ah man ngaa am man ngaa am man ngaa am li CFEE ak yooyu noonu ak 36e nee na dem ci DCM mooy xam jàng nga taxut a xam am na wute am na wute mm-hmm. man ngaa jàng te doo xam li nga jàng mm-hmm. xamit man nga koo def sax farata doo jàng ndax yonente yëpp xam nañ te jàng ndax yàlla leen xamal waxal la ma aadama asmaa kullaha waxut ñoo ko jàngal ñoo ko xamal la wax sunu tur yëpp moom aadama ndax day ab yonente moo tax yonente mu ne yàlla lay xamal nga ñëw di xamal gaay yi yaa ngi dégg kon mën ngaa xam te doo jàng waaye mën ngaa jàng jàngee ba noppi nan xam lim jàng jëmbi téere bi lépp ci téere bi la jëm de téere bii di aay yi bala kenn sukkandiku di daaj jeekat eh, saxal na ko jàng ba bu jàng bi nuppee mu xam lu ko ba xam ko waaye jàng nga xam taxul nga sañ ko de. des na des na mën ko ñetteel bi ban la mën ba xamee ba hmm. nanu xàmmee. xàmmee mooy ak mu ay dégg mooy dégg li nga jàng. xam hmm. bari na ko jàng xam di wër naa day daaj jeeka saxal. Hmm. te wër ta daaj jeeka saxal ndax xàmmeewul. xàmmeewul xam na waaye xàmmeewul. xam mbir ak xàmmee ko ñaari bokkul la waaw. yaa ngi dégg xam mbir. ak xàmmee ko ñaari bokk la liñ la expliqué ko ba nga comprendre ko ba xam ko xam nga ko. Mhm. waaye soo dajeeg moom mën nga ko bañ a xàmmee. ah weer na ndax jaxasoo wu leen. yaa ngi dégg waaye xanaa ñett yooyu waroon naa day. Mhm. xanaa kon bi nga duggee ci école xam xëy na foofee mhm. dem nag université. di bi nga jëfee BFEM da nga dem lycée kon da nga dem lycée. bi nga amee xàmmee kon mën naa nga jëlee ca bac. kon dem nga université. taxagul nga mën a daal di ko saxal de. déedéet nee na nga demal ci ràññee muy docteur ak waaw doctorat ngi dégg bi nga Ambek fee am BFM am bac dem université mooy quatrième école bi mooy quatrième niveau bi fa nga jëlee doctorat bi lay autorisé nag boo boo boo maandoo nga sañ di saxal la ka dàq bala ngaa ñëw naan kafaa nii nii la demee góor ta demee yow la ñu mën a xool ba xam ndax ku ko war a wax nga yow la kan bopp yow la kan jàng xam xàmmee mooy dégg li nga jàng ràññee ca doo ko sañ a wax ñeent yëpp dama la koy indi ni ko alxuraan waxee. yàlla yàlla dana yonent bi salaam salaam. sallallahu alayhi wa sallam. yóbbu téere bi. Hmm. ci gaañ yi. Hmm. yow mi koy yóbbu ak téere bi yéen ñaar ñëpp ngeen doon xéewal gi gën a rëy ci jaam ñi. xul bi fadlillahi hmm. wa bi rahmatihi. fa bi daalika falyafrahu huwa xayrun mimmaa yajmaun. laqad manna allahu ala almuminina is baxasa fihim rasulan min anfusihim xéewale naa leen kat yéen ñi gëm xéewal bu rëy mooy lan. wàcce yonente bi ci seen biir jox ko hmm. téere bi hmm. téere bi nag ne leen ci defal ñeenti formation ku génnagul ñeenti école yi yow bëgg góor ñu sañ rek daaj ji ak saxal bala nga naan bayit bi lii koo fi rek lu tax mu wax ko yow baal ba jeexal ñeenti école yi professeur bu mag bi nag ñeenti école yi yëpp classe bi ne moo koy jàngale muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam nga bu ci jiitu loo xam ne yi moo aayaat yi jàngal leen aaya yi kon jàng der balanga ñew ci bay sakki hima ko yaxal mi kitab rek yatlo alayhi mu ayati moy jang jang leen rabbana fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika bala ñu def dara école bu moy nano jang ay jang ko ban jang ku jangul suñu ko wax jumha bahasa fil ummiyina rasulan minhum wa yatlu alayhim ayati saksu moy jitu baqala anku kama arsalna fiikum hmm. rasulam minkum hmm. waaye yatlu alaykumu ayatina formation bu njëkk bi mooy nan jàng jàngal leen ku sam njàng hmm. jàng ñeenti aaya ak juróom di tàmbali di daaj ay waxi mag ak waxi nit yàlla loolu mooy danse bu njëkk bi waaw danse la ah, nan jàng xam nga jàng mbokk mu ne ñun jàng mi noppi na da yudde nan dugg deuxième école mooy wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma xam nga bëgg lu ci garaaw. lim naan jàngal leen ko ak xamal leen ko lenn la. lenn muy waaw mooy téere bi aay. kon ndekete aay yi li ci doon am njàng ak li ci doon ak xam ñaari bokkul. <laughs> dégg nga waaw maam jëmmi aayaat yi muy alxuraan. la ko ne jàngal leen ko. suñ noppee ci jàng mi. wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma nga xamal leen nag téere bi ak hikma bi mooy sunna si. gis nga téere bi ngay jàng nopp ci njàng mi jublu ci xam ko kon li nga ciy jàng ak li nga ciy xam ñaari bokkul la kon jàng ak xam hmm. kon man ngaa jàng te doo xam te doo xam daa bari daa bari ñu bari jàng nañu waaye yàlla xam na ne xamul lim jàng kala si ñëppay jël ndax da bari na waaye dégg waaye jàng xam-xam yu benn ñëpp lañuy jàngalandoo voilà <laughs> moo tax fépp tamit boo demaatee noonu nga koy toppoo boo jaxal li mu kitaaba hmm. wal xikma hmm. ca jumxal bu dee Euh, bële ca jumha wa yuzakkiihim moo jiitu nga teg wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma hmm. nga demaat baqara gis wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma wa yuzakkiihim waaye bam ne it kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkiikum hmm. wa yuallimukumul kitaaba wal hikma kon ginnaaw formation bu njëkk mooy jàng hmm. wala na nanu xam xam leen jàng li tax ngay xam ni jàng mi ak xam gi du benn da ngay dem ci suuf lan xam bi suñ boole boole ña suñ borom boole ñaari ci benn aaya wakka daalika mhm. nu sarriful aayaati mhm. aayat ñëwaat na ñett mhm. loo xam ne mu aayaati naa aayat ñëwaat na xam nga nu sarriful aayaati wala yaqulu darasta wala nubayyinahu li qawmin ya'lamuun ñaari état bu bokk wala yaqulu darasta dañoo wax ni jàng nga kon ci <laughs> jàng ji nee bi nëpp ci njàng wala nubayyinahu ñu leerlu nag leen jàng leerlu googu li qawmin ya'lamuun ngir nu mën koo xam <laughs> kon gis nga li nga jàng. dañ la koy leeralal. génneel la yokk yeeg biir gi nga dog koo mën a xam. kon jàng ko ak xam ko ñaari bokkul la. dégg dégg nga def leen woote. ndax ki xam da dul yem ak ki xamul. déedéet qul hal yastawi llazina ya'lamuun. wal lazina laa ya'lamuun. innamaa yatazakkaru ulul albaab afaman yahlamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa ahman innama yatadakkaru ulul albab hmm. wa yara alladina utul xilma alladi unzila ilayka min rabbika huwa alxaq wa yahdi ila siratil hmm. wax laa lay wax ñëw ci bayit bi de ki saña daaj jeeka saxal kan la ba pare ñu doog a ñëw nag ci max naa bi moo tax ñi ciy dugg ñii te wuñu ci dugg ñoo yang ngi may dégg bu baax li may li may wax. ñoo doon toog seetaan ñoo wàcc di ko. ñoo janganan, ci ci terrain bi rek lu yàq loolu ko yàq. yaa ngi may dégg. léegi jàng nan xam nan dayoo de suñ borom ne xàmmee xàmmee nag moo gën a jafe. xàmmee xàmmee mooy dégg li nga xam. ñu bari jàng nañ xam waaye xam ko ci xam lu sax ko. ak fa mel. ak nu mu fa mën ak nu fa mën a mel. léeg-léeg nga fekk ko fenn naan li dëppuwut ak France ma nekk dëpp na ak na nam toogee bokkut ak na nga ko xamee woon. ah oui. <laughs> ngi dégg. nga xam mu taxaw tey nga fekk mu dëdd. ko ak nu fa a mel. Mhm. xàmmee dafa jafe loolu la ñuy tuddee faxmu mooy dégg li nga jàpp. Mhm. faxmu wala feq moo ñaar yooyu. Mhm. gis nga baatu feqoom sax mooy dégg xàmmee. ñëw na ci alxuraan ñaar fukki yoon yu bokkul ci ay aaya mooy ñaar fukki aaya yi bokkul ku njarum na yàlla baatu fax mu ñëw benn yoon mu ñaar fukki yoon benn pour nga xam ni xam ak dégg muy xam ak xàmmee du benn demal ci fax mu aay bi mu ñëw benn yoon la ñëw ci suutu lan ci ci Souleymane diglul fa fahamnaaha Souleymana mm-hmm. wa kullan aataynaa hukman wa hilman wa sakkarnaa ma'a daawuda al-jibaala yusabbihna wa tayra wa kunnaa faa'iliin xool déggloo nanu Souleymane mbir yi hmm. bi nga ko ko déggloo ba noppi dox koo jox xam-xam ba jox ko jox àtte ba muy àtte kon xam-xam ba ak dégg ga ñaari bokkul la hmm. fa fahamnaaha mooy déggloo nañ ko ko hmm. wa aataynaa hukman wa xilman kon xilman xam-xam bi lañ ko déggloo hmm. kon kon jàng nga xam waaye nag ne xam naa la dégg li nga xam dégg li nga xam nag mooy xàmmee li nga xam ak ngi dégg moo tax Sëñ Tuubaa mi xàmmee sax gisoo bu leen di ñaan di leen di taqale boo mee ci astaghfirullah bi maa gis muy ñaan yàlla ne ko fahim ni al xilma wasid ni xilma wa xamalan wa adaban wa fahma diglu bëgg fahim ni ya yàlla na yàlla na nga ma yàlla na nga ma déggloo looy dégg mu ne al xilma kon xam-xam bi moo la dégg wallaahi waxul alxiraata de njàng mi de déedéet état bu jàng weesu na xam na ba pare xam-xam baa nga ko mooy xilmu mun ko xilmu moomu nag defal ma ci fahm hmm. kon gis nga ci xilmu lañ soxla fahm mooy li nga xam nga dégg ko fahim ni yal xilma tawasid wasit ni xilmaa dollil ma xam-xam bi wa hamalan ak jëfe gi wa adaban ak teggi ni waaye wa faxma ak dégg gi da nga dégg kon gis gis nga ni mu koy ñaane demal ci tanwiiru sudóor ci lay gën pour la xam ak li daqaaiqil hulóom walil wa sayir fahim xoolal raqi yëkkati ma yow tarxiya la xijaaya samam xel mooy kawel ko mu jëm fan sëñ Tuubaa wax mu ne li daqaa'iqil xulóom mu jëm ci mën a àgg ci sew-sewi xam-xam yi xulóom kon mooy jam xel mu kon xam-xam lay wax walil xawaami dina àgg ca xuut-xuuti xam-xam ya waaye boo ma defalee xam-xam boobu yi nag ca xuut-xuut ya ak sew-sew ya ba noppi wa sayir nii nag ma def ma mujj nag fahim di ku dégg li ma xam <laughs> dégg nga. bu ko alim de. alim mooy mooy mooy mooy xuroo bi. Mm-hmm. léegi fahim nag. Mm-hmm. mooy fahmu bi. Mm-hmm. kon xam gi moo soxla état bu fahmu. mooy troisième école bi kon. kon nekk xam doy. da ngay ràññee li nga da ngay xàmmee li nga xam mooy da nga koy dégg. loolu nag alxuraan nee na. moo ci gën a jafe moom ndax li ëpp ci nit ñi duñ ko am mën nañoo jàng ba ne ar. mën nañoo xamit waaye duñ amu amu dégg alxuraan ko wax gis nga. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون yakahuna hadisah, ci ëpp xaw yafqahuna hadisa duñ dégg sayyidina Zulqarnayn gis nga gaayam ya hmm. problème boobu lañ amoon hmm. summa tabaxa sababan xatta hmm. isa balaxa bayna suddayni wajada min dunihima xawman la yakaduna yafqahuna qawla yafqahuna waxul yaxlamuna yaqrauna yafqahuna qawla jadi أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون bal تحسدوننا بل كانوا لا la yafqahuna xamé illa qalila lu dul neew hmm. waxut lu duñ xam di hmm. xam nañu waxut duñ jàng dégg ga xamé ga néna ñu neew ko ca mëna def xam nga lutax mu metti mu mu jafé lutax yalla néna xol moy xamé fi ne jàng ak am xel la waye xol nak moy xamé xol bi lañu ubbi leeral ko xol bu leer ci la yàlla def fiqhu bi hmm. mooy tax mu mën a lim xamoon man koo dégg nag hmm. nangu ko xol bi la hmm. comme problème mu xol la moo tax day jafe di yomb di yomb bari na kuy wër di contour naan kafaan yar baaxi mamara samara nangam wax ci tegul fenn nanga fekk appareil yi ne ci xol bi yow noonu dégg wax ja ba nangu ko moom moo paan duxul du def yëg nga yëg nga ne yàlla bi ñi mu dajaloon ci yéefar yi mm-hmm. ñi ci ëpp. Mm-hmm. amul problème mu jàng nga xam ne ay kaan fóori lenu problème wax dégg lañ am mooy xàmmee ngir mën a nangu li muy wax. abul xikam abul xikam jàng nga ko de mooy mooy mooy. aboo jaxle kon kon kooku weesu na jàng. déggu yàlla nee na sax am na ci ñoo xam ne ay ay fóori yu mag la ñu da da koy wax. istaqasu ahbaaruhum wa ruhbaanahum arbaaban min dunillah wal masiiha ibna maryam la tajidanna asadan naasi hadaawatan lillazina aamanu yahuuda wallazina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نسأل ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أي برم كم كم يمك نيوتا نيكون اي فوري ay kon ñooy jàng nañ ba xam. lu tax mënunoo nangul yënt bi wax xam na xàmmeewuñu mooy seen xol lu dégg li muy wax ndax dégg boo dégg ñu naan yàlla na yàlla ubbi la. ubbi sa xol la ñu ubbi def ci leer moo tax ñu xam-xam bu ànd ak leer. loolu mooy fa fiqhu. Hmm. mooy fahamu. Hmm. mooy xàmmee li nga jàng xàmmee xol a koy def. Hmm. waaye du xel. xel mooy jàng ak xam waaye xol. te étape boobu troisième étape la. yaa ngi dégg moo tax képp koo xam ne mënta dégg mënta xàmmee xolam moo fat loolu alxuraan wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa ay yoon ni ya sax la taxoon ñu naafiq dañuy jàng xam te ba noppi naafiq gëmunu gëm gu wér li yonent wax dañ ko nam xol ba moo amatu xàmmee ndax yàlla nee na appareil bi xàmmee daa paan ci ñoom moo ak ni faax dugg ca moo tax bu yonent Musaa na woote ñooy lay ba duñ dem bari na waaw ya, loolu chaque jour yonent bi yàlla nga xam ne maanaam ñoom hmm. li tax ni wute hmm. jotaay yi duñ bëgg ñëw suñu borom nee na loolu la hmm. raddu bi ay yakunu mahal xawaalifi waxtu bi xalaa xulubihim lu ñu ko teg fahum laa yafqahuun gis nga ban boo gisee ñuy tax ne di wute sooy jotaay duñ duñ ca bokk hmm. yaa ngi dégg di di di lay ngir bañ a ñëw hmm. waxtu bi xalaa xulubi maa kaske seen xol ya kaske ga ma kaske moo jur fahum laa yafqahuun ñoom duñ xàmmee yafqahuun mooy feqhum hmm. mooy li nu xam mënuñu koo xàmmee du ko dégg ndax seen xol yi war a dégg moo fat loolu du fi jóg fi jóg fa yaxal muqallafoona bi maqaadihim xilaafa rasulillahi wa karihu ay yujaahidu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qaalu laa tanfiru fi lxarri qul naru jahannam asadu xarar waaye kañ law kaanu yaqahuun su fekkoon ni am nañu xàmmee ci liñ jàng am ci dégg seen xol di ko kon day duñ tànn mukk di wuuteeg yow ak alay ndax lu naan naaju tàng naag tàngooru yee ma ba tax ñu bañ dem sawara dëxanam a gën a waaye ñi ngi ko doon dégg nag ci kaw seen xol ba ñoo na fat gis nga chaque jour bi wax fiqhu xol lay jëfandikoo hmm. day weesu ay nopp akum xel hmm. wa isaa ma unsilat suuratu nazara baxduhumoo ilaa baxdin hal yareekum min ahadin summan sarafu sarafallaahu xuluubahum xol ba ñëw na loolu laa jur bi annahum xawmun laa yaqahuun waxut laa yaqra'uuna duñ jàng de hmm. waxut laa yaxlamuuna foofu laa yaqahuuna weesu nañ jàng gi weesu nañ xam gi ñi ci xàmmee gi muy dégg troisième école bi. gis nga naa fiqee ca sur surtout munaafiqoon xaaloo hmm. nasadu innaka la rasulullah innaka la rasuluhu innal munaafiqina la kaasibuun mu ne ko ittaqasu aymaanahum junnatan hmm. fa saddu han sabilillahi innahum saa ma kaanu yamaluun hmm. dalika bi annahum amanu summa kafaru fa tubbiha ala qulubihim lum jur fahum laa yafqahuun laa yafqahuun nga foofu weesu nan yaxlamuun weesu nan yaqra'uun waaye laa yafqahuun falan tool falan tool parce que problème mu yàq ko mën moo tax bi yàlla naan sax yéen ñi jug ngir waalante sax niveau troisième day bu ngeen sotee ba sot na ngeen fa toll. waaw fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifa waaye li yatafaqqahu fi diin wala yun siro xawmahum isaaratuhum ilayhi la'allahum li yatafaqqahu fi diin waxul li yataxarra'u muy ñàng ma waxul li yataxallamoo hmm. muy xam nga waaye li yatafaqqahu nañ amul dégg ci li ñu xam ba xàmmee doog a sañ a waare gis nga de lislaam fasilu di dajji ci lislaam ak a saxal yombalu ko ku jàng ñeenti aaya juróom benn addis xaw a déggantu arab ñemee song mbindum sëñ bi ñemee song lu la neex naan lii tegul ci lislaam ak naa nga fekkee autorisé wul la loolu laa bëgg lu addis yi ak addis yi nan def nag saxalub addis ak weddi ko saxalub aaya ak weddi ko saxal mbindum sëriñ Tuubaa ak weddi ko du ku ne ko war a def ku ko waroon a ñeme sax du ku ne ko war a def yaa ngi dégg dafa dansé yooyu dafa mën xam suñu borom nee ki amutu xàmmee nga xam ne ubbuuma xolam def ci leer def ci xàmmee xanaa xamoo du gëm kii maan déedéet moo gisee waaw du gëm mukk karaama yeeg yooyu te moo gisaa karaama lenn la moo gisee yónnante karaama wàll yi waaw ko amul waaw sëñ bi ko wax lu dagan ci yónnante mu def ko ci moo gisa mi ngi ma ko ci yu mm-hmm. dagan na ci mu fa fa maa yëfi fii mu'jizaati nabii yajuusu fii karaamatil walii wallaahi wala mu'jizaatan ak ak kamaa xala ma nga ca Masaalikul Jinaan hmm. xoolal yàlla wax na ko yéen tamit gaa yi jàng ba xam te xàmmeewuñu hmm. na ubbiwuma seen xol def ci leer ñu mën a am dégg ci liñ xam hmm. sooy waxtaan dañuy ñëw di la diglu de waaye mënoo fexe fexe ba nangu li ngay wax ndax du nangu kii maanaam wa i nee na wa minhum man yastami'u ilayka kon dana la diglu si waaye wajaxal naa ala qulubihim akinnatan an yafqahu wajaxal naa ala qulubihim maa def ci seen xol akinnatan ba la kaas an yafqahuhu xam nga waxul an yaqra'uhu mm. waxul an yaxlamu an yafqahuhu wa fi asaari waqara moo tax wa in yaraw kulla ayatin laa yuminu biha boo leen waroon bépp kiimaan ni duñ ko gëm kon gis nga bari na kuy weddi waxi ku tedd ki wala waxi gaa yi baax yi mag ñi ñu tudde ko jàngkat wala ab xamkat fekk ak àggul ci troisième niveau mooy ak xàmmee na xàmmee mbirum xol la xol bu leer a ko man hmm. na xol bee koy nii alxuraan dafa am communication ak xol moo tax xam lu ko waral hmm. ci xol la wàcc ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko loolu loolu moo tax mu am mu am liaison ak xol da hmm. nga dégg xalaa xal bi ko la ko wax dama ko wàcc ci sa xol alxuraan lu ñu wàccee la ci xolu yonent bi da nga dégg wàcc gi wàcc ab xolam nag moo ci indi loolu moo tax dafa am communication ak xol moo tax li koy dégg xol la hmm. li tax ngay xam ni xam gi ak dégg gi du benn bëgg hmm. yàlla boole na ñoom ñaar ci ñaari aaya yum lëkkale ca sot lan xam ñaari aaya hmm. yum lëkkale ki sut lan xam nga xam ne da ciy wane ni kon yàlla moo na rek taxul nga àgg ci yaf xol na ah ndax ñoom ñaar dañoo dañoo dañoo dañ dul bokk ak dégg loolu nag day day am lu muy lu muy lu muy lu muy lu muy lu muy lu muy wane yaa ngi dégg ba mu wële si jaxala làkk mu nu juuma 97 98 xoola ba mu wële si jaxala ah. làkk mu nu juuma li taxtaru biha fi sulumaati al barri wal bahri qad fasalna al ayaati li xaw mi yaxlamuun jaajuwaat ne wa huwa lati ansaakum hmm. min nafsin wahidatin hmm. fa mustaqarun wa mustawdahun xam nga fasal naa ayaat yi waaye la xaw mi nekk xoon hmm. xoolal bu njëkk bi bi ma waxee ci bidiwu yeeg ni mu ko sàkke ak kiimaan gi mu ci def muy gindi nit ñi ci lëndëm yi dane xam nga fasal naa ayaat yi te xantal nañ sunu aaya yooyu aaya ñaar la ayatul kawni ak ayatul ah, quraan yi xoolal te xantal nañ sunu aaya yooyu pour ñam li xaw mi ñaala moon ngir gaa yi xam mu ne yéen ñi xam ba noppi nag kaay leen ñu ànd dem ci 300 école وهو الذي أنزل أكون من نفس واحدة فمستقر ومستعد بين قد فصلنا الآيات وإلى قوم يفقهون كون دانيو ديغي تي خام جيم تي خامي تي خام نا خامي اك ديغ لا موي تاخ nga خامي ليغا خام با فوكو فيك نوم فا مانا مل دوكو جاوالي داغي ديغ بو فيك يو نانكو خامي وون فيه دونغ ماكو مانا خامي لين nga dem fenen xamé wuko ñu bare bare nak nan ko xamé won ci nan ko jangé won mhm. data buñ ko fekké fé na ñu daal ah lii bokkut ak diine ji fekk xam nañ way xàmmee wuñu te xol bi ko lañ amul mm-hmm. kon ki alquran takkale na kon gis nga kisa ne wax day jàng mm-hmm. du ca yam xam lim jang bu ci jógee xàmmee bu ci jógee xàmmee lim jang bu jógee ci xàmmee ngir gis nga sax Serigne Touba ah. boo xoolee fu ni mën a wéri si dóor nga ko day ñaan xàmmee kooku suñu borom defal ko ko mm-hmm. yaa ngi léeg-léeg nga dégg mu ni mu ni yàlla na nga kan na nga na hmm. nga nah, hmm. nah, hmm. na nga ubbi sama xol xataa usaahi dala si xat ka mu mekan naa fi muna ngi dégg ndax nee na xàmmee ya. gi mooy tax ma mën a jàkkaarloo mbir ya moo tax ma mën a jàkkaarloo mbir ya xàmmee xàmmee nah, gi da ngi dégg moo loolu nag mbirum xol la moo tax da ñaan borom dafa ni xam gi na ànd ak sak chaque da koy wax na xàmmee gi tax nga seen mbir ya ñu ci waaw mooy bi gën a jafeeti booba gën a jafe xam nga yàlla lañ koy abi eh, aywa ragal yàlla xam nga ci xol la sax waaye beneen étape yàlla dani fii lay ne hmm. fii sadri yi daal di junj dëndum hmm. waaye bii yàlla dani yaa ayyuha llaziina aamanu hmm. ankum sayyi'aatikum yaa ngi daani wallaahu sul fadli xasim wa yukaffir ankum sayyi'aatikum wallaahu sul fadli xasim yaa ayyuhal laziina aamanu in tattaqullaaha yaj'al lakum furqaanan wa yukaffir ankum sayyi'aatikum wa yaxfir lakum wallaahu sul fadli xasim yéen ñi gëm yàlla su ngeen ragalee yàlla yàlla defal leen ak ràññee ci alxuraanam ji kon nekk alxuraan ji da nga ciy amum jàng am ci xam am ci xàmmee am ci ràññee même alxuraan ji la mm-hmm. kon yow benn aaya yow bu fekkee jàng dong nga ci am amagoo ci xam ne da ngay da ngay saxal ak dindi biñ ci amé jang ko xam amu goko xamé né da ngay saxal ak dindi biñ ci amé ak xam ak jang ak xamé ta bu go ci ragné né da ngay saxal ak dindi furqanan mbolam tafsir kat yépp biñ koy firi dañu wax ni al furqan ñene moy la ñene furqan kat mooy yàlla teqal leen la yufarriqu fi qulubihim bayna alxaqi wal baatili li yataharrafuhu wa yahtadu bi tarika furqaani mu fassiroon yépp ko wax mooy yàlla defal ak teqantal ki sa xol hmm. ndax ragal yàlla ci xol la ne hmm. ba mbir mu ne nga xam ne ca la cay dëgg ak la cay neen xam gu wér hmm. yaxarrifuhu sax lañu wax mooy xam gu ba noppi nga gindiku ca nag gindiku goo xam ne mënatu caa réer waaw jafe ñu bari dañuy réer ci li ñuy wax defe ni du ni fekk ni la léeg-léeg mu tudde ko baatu baatu bashira gis nga yéen tamit salaatu salaam qul haadihi sabiliya ad'u ila llaahi alaa bashiratin ana wa man ittabaani wa subhaanallah wa ma ana mina mushrikiin sama yoon mooy yoon bi ma ne leer na naa ñu di salaatu mustaqim ci laay daxawa di ci woote ak ñi ma investir ci jotaay boobu muy woote daane nag ñi ma ci investir nag le minimum faaw ñu taxaw ci maqaamam ràññee mooy alaa bashiratin mu xaa mu dañ naan albasiratu hiya almahrifatu allati yumayyisu biha bayna haqqi wal batil mooy xàmmee goo xam ne da lay ràññat leel dëgg gi ak neen gi ba doo ci juumat yow mm-hmm. basira waaw inna fi tark la xibratan li uli la basaar mm-hmm. waskur xibaadana ibrahima wa ishaqa wa yaxquba ulil aydi wala basaar yonent yëpp amuk ràññee mm-hmm. moo tax yàlla tagge leen ko faxtabiroo yaa ulil absaar loolu du ko ne sax ku ne ko man moo tax Serigne Cheikh da nga daa firi ne réfléchir leen waaye yéen ñi am capacité mën a réfléchir sëriñ si Ahmed Diagne Sane nadek ko tuub wax na rek ñëpp amul capacité ba. dëgg ndax foofu dafa boo amatul ràññee ak boo ci capacité. xanaa xam nga ki nga xàmmee. ba boo jàkkaarloo moom xàmmee ne mi ngi nii. bokkut ak ki nga ràññee xam nga ki nga ràññee mooy ni nga ko xàmmee nii ba foo gis xàmmee ko. su demoon ba ay jamono mu soppi ko mel na neen wala mu duggoon ci dàmb ak diw wala nangam. da koy mën a ràññee. mooy la réerati gis kon. bala ngaa sañ a saxal la ka dàq. da ngay xam da ngay jàng d'abord. jàng doyut xam li nga jàng. xam ji doyut. xàmmee li nga jàng. xàmmee doyut. ràññee li nga jàng. soo maandoo nag doo ko sañ naan lii ndax dëppoo nag diine dëppoo wut ak diine. kafaan ngeen baax yi mamaata sarmada boobu baqaa yeesu rahmada léegi nag bëgg. ki yàlla dimbali na ba mu am ñeenti niveau yii. bu gisee bayitum kafaani yal mama mamaata sarmada boobu baqa yasiru ahmada sëriñ Tuubaa wax ko du am problème xam nga lu problem. du am problème lu tax jàngam ak xamam ak xàmmee mag ràññee xam nga lu koy indi day njëkk xam ñaata dee am waa xamut xàmmewu ràññewu day defee ni dee moom bu ñu ko waxee genn dee rek la mooy dee ya la ci rek du yoo xam ne alxuraan ak sunna ñoo ko sakk te yow xamoo gan mu war la ci nga ne da ngeen di font yéen da ngeen di font ak seen sëriñ xoolal boobu dansé. sëriñ neuf mois. neuf mois te kat li ci garaaw. Mhm. neuf yi yëpp sariixa ko andi ci alxuraan ak sunna sariixa la gi ñëpp mën a jot. kaat yi nag ak xeexaa ko andi te ci alxuraan yi la nekk ba dinaa ko indi. <laughs> neuf mois moo am neuf mois juróom-ñeenti dee juróom-ñeenti façon nga ni dee yoo xam ne alxuraan saxal na ko sunna saxal na ko. juróom yi sariha ko andi muy xam-xam bi jàppandi ci ñëpp ñeenti yi aqiqa ko andi muy xam-xamu tasawuf bi nga xam ni moom ak jagoo la waaye xam-xamu tasawuf it ci alxuraan ak sunna la nekk ndax mooy lislaam boo boolee sariha ak aqiqa mooy firi lislaam dinaa leeralaale sax xam-xam aqiqa ni nekk ci biir alxuraan ak sunna te muy indi kat moori kon kon xam nga juróom-ñeenti moo am juróom-ñeenti xeetu dee nga dégg mag magum jëmm mu toll ne mag mu mag mag ñi di Sëñ Tuubaa ne man ma dee yow xamoo sax yow xeeti dee am nga tëb ni te xamoo kan dee xamoo bo bo ma tuusa est ce que ñoom xam na ni neuf mois moo am looloo njëkk garaw <laughs> juróom ñeent dee am na ci diine del bank sa baaraam un dee bu njëkk gi bu ci nekk rek alxuraan la ko dee bu njëkk gi un maa ngi juróomi sane xa andi mhm. nan dem lan xaam sun borom nee na aw man kaana mhm. fa naa ko mhm. wa jaxal naa fi kaman masaluhu fi zulumaati mhm. laysa bi xaarijin minha mhm. kadalika zuyina lil kafirina ma kaanu yaxmaluun aw gaay ngi nii wala jëmm ngi nii mhm. aji dee la dee woon na man yàlla ma dekkilaat ko dund dundalaat ko defal ko ak leer bu may doxi ci biir nit ñi te li ñi gën a garaaw bëgg kooku yàlla ne dee na néew la woon far na dekki mi ngi dundaat mës ta taqali taqalikoo ruuxam ak yaramam ci nit ñi la mosa ne yàlla tuddee na ko fi néew ba dekkilaat ko na ne euh, diglu li ma lay wax de. dama ne kooku mu njëkk a tudd néew. Uh-huh. bul defe ne daa tàqale woon rooga ak yaram wa de. Ah. andiwaat ko déedéet kuy dund la di xool ne yow di dégg ni yow di yëngatu ni yow am ay activité ni yow jur nga koy gis nga di ko gis mu di la gis ñu ngeen di jox yàlla ne dee na dem ba yàgg sax mu ni na dekki na te diggante dee na ak dekki na gi ruu gi tàqaliwutu ko yaramam kenn samu ko kenn samu ko. waaw di bala maa leeral yi ñu demee damay nettali dee yëpp ba pare juróom ba juróom-ñeent yi man <laughs> del banque sama neel un euh, euh, kooku aji dee benn gi noonu neel benn deuxième mhm. yàlla nee na yonent bi ko sóoratu Ruum mhm. fa innaka mhm. laa tusmihul mawta wala tusmihu summa duhaa ak isaa walaw mudbirin wa ma anta bi haadil hum yi han dalaalatihim in tusmihu ila man yuminu bi ayatina fa hum muslimun ay gaa yi nii dee nanu booy dee nañ yoo xam ne bul sonnati mënatoo wax ak ñoom ba dégg la dee nanu mënatoo leen a wan sa dëgg gi ban gis ko dee nanu tëx nanu dootuñu diglu sa dëgg sa dëgg gi lu nanu bu ci sonnati ndax day dee nanu groupe boobu yàlla ne dee nanu <laughs> jamono ji yàlla naan dee nanu ñu ngi dundi doxi seeni soxla yàlla ne ay néew dan de loolu beneen façon dee fa innaka googu sax wax na ko ñaari yoon ndax boo demee ca sóoratu nam li <laughs> même groupe ba wax na ko foofu sax mooy ñaari aaya yi nga xam ni ci alxuraan ñoo bokk ay leetal bokk ay baat wóotewu na dara dul wenn araf moo tax kanfoor yi bi ñuy doog a mokkal daara a daanañ ko fitantee mm-hmm. dañ lay taraloo ba ca nam di taraloo ba ca ruum soo mokkul da ngay da ngay jaawale bii fa innaka fa la fa la am bi so sootu ruum bu dee bëri nag innaka rek amul fa loolu da nga leen wutale innaka laa tusmi'ul mawtaa wala tusmihum summa duhaa isaa walahu dibiri wa ma anta bi haadihum yi an dalaalatihim wa in tusmihu ilaa man yu'min bi aayaatinaa fa hum muslimuun wa isaa waqa'a al-qawlu moo ca topp ba léegi suuratu Naml bu dee bële nag allaahu lazii xalaqakum min nutfatin ci moo ca topp ñaari aay yi ñoo bokki baat bokki araf wenn araf rek wutale mooy bii daa am fa innaka bi amul fa bi amul fa waaye ñoom ñaari aay yooyu beneen xeetu dee lay wax nee na yonent bi gaa yi al mawta mawta xanaa lañ xamante baatu mawtu dugg na way dee la moom te ñooñu yi muy wax seen ruu tàqali foofu sa seen yaram neen ñaari dee. ñaar waxuma waxi kenn de alxuraan laa la yow xamoo ko ban façon dee. Mm-hmm. yow yëgoo sax ay façon dee am. wax lu eh, dee kafaan yàlla ma maata attention. ñu nit ñu téye ñu ba ay gars yu baax lañu. dañuy dégg ñu ah, xam naa kalaama loolu yaa yi ne las afhamu <laughs> dañuy dégg wax waa li ñu nangam nangam. Uh-huh. moo tax nan xam nan jéem a jàng te jéem a xam. te xam ne Sëñ Tuubaa mii dañ koy reeloo de lu mu dëgg la. wallaahi ñun gàtt aliwa dana nu yóbbi ba nu yàq suñu pas-pas te ñu koy yàq gàttu aliwa ci lañ ko teg ba yàq loolu nañ ko moytu. wallaahi waxuguma ñaari dee. ñaar man kaa def sa baa nag sari xale ñëpp a ko jàng ñoo bëgguma sax jàqi muy ñaar <laughs> léegi ñetteel bi alxuraan nee na ca suuratu Zumar allahu <laughs> yatawafal anfusa xiina <laughs> mawtihaa والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قد عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون من يلا الله من يلا يتوفى الانفس فاتنا اي مكان كن حين موتها وقت وان ديري ماي واني نلاو نلاو غوغا ديرا كو تودي nga xamni amna ño xamne ban deewé moy tudd na dina la fala jaar jeul seen roomu teggi du ñew waat xoolal wala ci am bakkan bopp lam tamut moom faatuwul fii manaamihaa ca nelaw ya xoolal bii manaamihaa la wax mu ne mawtihaa allati yatawaffa al-anfusa hiina mawtihaa au lieu que hiina manaamihaa <laughs> nelaw gi dee la ko tuddee alxuraan la <laughs> ak dee la loo tax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mu jàngale ku nelaw ba yeewu neel alhamdulillahi lazi ahyaana mm. ba'dama amaatana wa ilayhi nusur mm. maa ngi sant yàlla mi nga xam ne dekkil na ma ginnaaw bi mu ma reyee te ci moom la ñu mujj ko da ngaa yeewu kat. ci hmm. nelaw. Hmm. waxut ne yee na ma ginnaaw bi ma doon nelawee. dëgg yéen mi xam arab dégg ko ma dañ waxal ne maa ngi sant yàlla mi ma dekki. ah hmm. kañ baax na maa amaata naa amaata baatu mbootu la. ginnaaw bi ma reyee. dekkil na nu ginnaaw bi mu reyee. wa ilayhi nusur. dañ ne ki nelaw ba yow da ko wax kon ki nelaw ba yow ci dee la jóge. loolu alxuraan la de. léegi léegi du gaa yee ko ko tuddee ñaata dee laa doo ko gum ñett ñett ngo ba tey bankaata samaanam ci alxuraan nga demal ci alxuraan fekk fa wala taxsibanna allasina xutilu fi sabilillahi amwata bal axyaun hinda rabbihim yursaxuun farihina bima aatihumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalxaqoo bihim min xalfihim allah xawfun alayhim wala hum yaxsanun bu leen njort mukk ne gaa ñin rey ci yoonu yàlla déedéet déewunu ñu ngi dund fii ki seen borom mu leen di bégal di leen wërsëgal yastabsiruna bi nihmatin min allahi wa fadlin wa anna allaha la yudiu ajra muminin di leen xéewale ci xéewale bi xam nga lu gën a garaaw bëgg te léegi nga dégg la googu dund bar sax la waaw dee na na dund bar sax la bu fekkoon dund bar rek la kay du exception dund bar sax ñëpp ko am uh-huh. eh, kon kay juru yàlla di ci préciser képp ku faatu rek yaa ngi dund dund bar sax yaa ngi ba ci yëfër beeg ñëpp kooku amul exception uh-huh. dee diggante ba gàtt la diggante bi sa ruu di tàqale ko seeram diggante boobu nga fi nekkatul waaye bu xasee ba tàqale la koy delloo ngi dundal jamono jooju nit ñi waxee yow sa yaa ngi koy dégg hmm. da ngaa mënatut a tontu tax hmm. da ngaa dugg ci xaalamul xëy hmm. mënatu leen a dégg mënatu leen a communiquer waaye jamono ji nga faatoo ba nuppi sax ba sedd yaa jamono yi wax sax nga dégg ko xare ba dar <laughs> yow gis nga la xewal yéen tamit tiim pax mi na ah yow diw man de xamu woon da nga def nii ah yow diw yowe yow diw yowe sëy naa war ne ko lan waaye yow nii yi ngay waxal nag mu ko ñi nga may dégg ni nga may déggee dañoo mënta tontu parce que dee diggante bu gàtt bi roogi tàqali ko yaram bi rek hmm. nga dul nekkat ki sabu tout à waaye bu jeexee rek day ñëwaat hmm. kon tàmbali nga sa dund ba sax hmm. sëñ tubaab la la wax nee na yow mal xiyaam qiyaamataani. ndax ni isil qiyaamatu qiyaamataani. bi ci njëkk mooy lan mamaatu kulli ma insaani. Hmm. kon ku faatu rek si yow ma daan tàmmi ndax tàmmi nga def xayaatul barsaq. Hmm. kon kay bu fekkoon ne xayaatul barsaq boobu dong nga tax yàlla di wax naa wala tasiba la ci ne xutilu fi sabili amwaatan bal ahyaa'un du ko jàpp. Hmm. kooku ñëpp ko am. bu leen leen jàppee ñu faatu faatu wuñu. ñu ngi dund kon kon seen dee googu ak waaye ban façon dee. te ñu bari kat dañ nan dee naan nañ wax dee naan wax dañuy dund bar sax ne bu leen ko wax ñu nañ ko wax suutu bakkar xam lu ñu wax wala taqulu ndigal la hmm. wala taqulu hmm. liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahyaun walakin la tasurun hmm. wala taqulu nga ne bu fi kenn wax liman ñeel nga nga xam yuqtalu fi sabilillahi. dañ ñeen a ci yoonu yàlla bu leen kenn wax am watan way dee yàllaa ko ne bu leen kenn wax ni am watan ndax bal li am kat ah ñi ngi dund wala kii laata suróon yéen a ko yëgul yéen a nii dundee waaye ñi ngi dund interdit naa kenn naan dee na te da ngay gis sàmm mu toog fee naan la dee nanu waxal dee nanu dañuy dund nanga yàlla la waxal dee nanu tax ko moom mu ne la xool lu gën a naase nag <laughs> kon muy ñeenteelu dee bi mooy ñeenteelu dee bi kon beneen façon ngi dee ngoog hmm. ba gàttal sa baaraam juróomeelu dee mooy bi ñëpp xam ne kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah hmm. faman suhsiha 'anil nar udkhila al-jannata faqad faza wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur hmm. mooy bakkan mus dund hmm. dana mos dee boobu mooy dee gi tàqale ruu ak yaram bi ñëpp xam kon juróomi dee ngi na kaat yéen yoo xam ni aqiqa ko jàngale muy tasawuf muy yéen aqiqa moom na ñu bari dañ ko bëgg a génn ci diini ci defe ni ay gars yi daal ñoo bëri seen yëfi bopp lu alxuraan xamul sunna ko xamu ko ñu tudde ko ak jagleeg nangam déedéet juum nanu jëmmi haqiqa ci alquran ak sunna la bokk te mooy tasawuf tasawuf mooy xam-xam bi tereete yoonu haqiqa nit ki fiq ni mu doone xam-xam bi tereete yoonu sariya sariya ak haqiqa ngay boole doo ko am diina juma mm-hmm. moo tax alquran ni yërante bi yatloo alayhim ayaati nanga ca teg kat wa yusakkihim taskiyatu boobu mooy mooy mooy aqiqa ci yoon yéen tamit la bokkoon. d'accord léegi de way yu sakkiikum léegi de mu wax ko ko noonu. Mm-hmm. falaa tasakku anfusakum huwa a'lamu bimani ttaqaa. Mm-hmm. yoon woowu mooy yoon aqiqa xoolal bëgg. dama lay njëkk a tegtal ci alxuraan. Mm-hmm. xam-xam aqiqa nag day xam-xam boo xam ni tasawuf. du xam-xam bu ñëpp jagoo ko. xam-xam boo xam ni xam-xamu biir la du da ngay yër téere yi rek mën koo gis. wala da ngay jàng nii rek gis ko du himnul kutubiyya déedéet xam-xam la boo xam ni mii ngi ci téere bi waaye jàng ko du tax nga jot ci yàlla lay tawfiixale déggloo la ko ci téere bi ci support bu ko neex. Hmm. bu bokkut ak jàng mi. loolu nag alxuraan la ko saxal jox ko ay gaayam. iqra bismi. Hmm. rabbika allasi xalaq. xalaqal insaana min xalaq. iqra wa rabbuka al akramu allasi lu mu ko teg xallama bil xalam. Hmm. xallama al insaana. waaw kay. allama bil xalam mooy dana xam li ci xalima mm-hmm. moom yàlla mm-hmm. mooy xam-xam bi ñuy jëlee ci xalima xalimaay bind téere yi mm-hmm. ñu jàng kon xam-xam boobu wane na support bi ñu koy joxee waaye allamal insaana maa lam mooy li muy xamal doomu aadama te amul support moo tudd fa benn benn benn kay fiya mooy moo koy xamal ko ko soob benn benn wa allamahu mimmaa yashaa'u man ke suutu baqara maa koy xamal ku ma neex wa allamnaahu min ladunaa xilman xilmu ladunniya la xam-xam bi fi nun ñu di ko xamal dënnu sunu jaam ba nu soob. Hmm. dégg nga Seydina Xadir rek Moussa ak seen mbir ma. Hmm. Moussa la tiir yi wàcc ci moom. Hmm. su ma fi Ibrahima ba Moussa. mu doon àtte jamono ja. yàlla xamal lu mu jàngut ci téeréem ya ngir boobu xam-xam yàlla directement la ko xamal Seydina Xadir. moo tax ba mu jeexalee dana ko wamaa faxaltoo xan amri. saalika taawiilu maanaam tas ci ali sabra defewuma woon sama coobare. li ma doon def lépp ndigalu sama borom laa ci am. xaaral ma leeral la ko mu leeral la ba mu ko leeralee lépp daal di koy leer. gis nga. gis nga kon xam-xam boobu alxuraan ko moo ko saxal wala yuhiituuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma hmm. kenn du peeg dara ca xam-xamam ba lu jul la ko soob hmm. kon boobu xam-xam yàlla koy xamal ku ko neex hmm. loolu loolu dool xolal kon kon aqiqa xam-xamu tasu alxuraan saxal na ko mooy xam-xam bu dul jàng te yàlla di ko defalul jaamam mu di ko mostalee diine mu mat ci yoonu ihsaan bi nga xam ci la tasu génne waaye ci sunna dafa saxal ni tasawuf bii muy xam-xam bii nga xam ne ahlu haqiqati moom la ñuy wax xam-xam boobu ci alxuraan ak sunna la bokk ndax téere bàyyiwul dara maa faratnaa fi kitaab min shay'in loola yàllaa leen ko ca xamal ñoom sunna bàyyiwul dara ndax moo leen a téere bi li tubayyina lin naas basastuhu wa amma al aaxiru falaw basastuhu qata'a haasal hulquuma bare riwaaya na haasal burhuuma hadiisun sahiih ñaari mbuusi xam-xam benn mbuus bi yullil naa leen ko mooy bi jàngale sariya ba moom moo ëpp lu mu joxe addis wala bokk na ci hmm. waaye beneen mbuus bi te nee na ci yéen digg la ko jële de beneen bi araf wu ma ca waxoon hmm. yéen jullit ñi yéen a may jàpp yéefar hmm. ba da ngeen di tàqale sama bopp ak sama baat xam-xam boobu mu jële ci yonente bi te bu ko wisaare woon ñi ko attinu sax te mu nu jàpp ne daa génn diini ñu bari ko rey xam-xam boobu mooy xam-xamu tasawuf mooy xam-xamu ak ñëpp yàlla woon ko waaye jëlewu ko ca mel dama de kër yéeru ko boppam fi mu jëlee sarixa ji la ko jële kon ki fi indi sariha fi dàq. bi mm. rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. su ma jaxal nag min al amri. Mm. fattab mm. ñoo la teg ci yoonu sariha waaye min al daa bokk ci mbir mi wax ko de. sariha daa bokk ci mbir mi fattab bi kon am na luy complété mbir mi. tout à fait yaa ngi dégg addis beneen bi daa am ñu ko xool ba nga naw ko ci addis yu bëri ñu mu nettali ne ko ak sarta ak baril nga nag baril nga di ko naw daal. mu ne yéen bi kulli ma sami'tu min annabi sallallahu alayhi wa sallam la rammaytumuni bil xashi wala ma nasartumuni su fekkoon ne day waxtaane naa leen maanaam nettali naa leen lépp li ma déggee ci yonent bi am na ci loolu su ma ci eggee ay xeer ngeen di jël di ma ko jam ba ma faatu te da ngeen ma jëpp ngir jàpp ne génn naa diine ba da ngeen ma bëgg xool hmm. yow booba xam-xam da nga xam ne nee na bu ko nettali woon sax julli ñi considéré ko nii hmm. te nee na ci yónnent ba la ko jëlee. kon xam-xam boobu du bu ñëpp jago. ndax bu fekkoon ba ñëpp jagoo la amul droit nëbbu ko ndax bi ñëpp war a xam ku ko nëbbu rek bu mu yàlla wàcc ci sa kaw. moo tax dégg nga sax ca eh, tasawul subaan sëñ Tuubaa ne aji xam du laabiriwul ak xamam nayta yàlla dana ko natt balaa faatu. la ko waral mooy la alxuraan ni kat na ngeen yëg ni. inna allaziina yaktumuuna maa anzalnaa minal bayyinaati wal hudaa min ba'di maa bayyannaahu linnaasi fil kitaabi. ulaaika yalhanuhumullaah wa yarhamuhumul rahimun téere bi moom li ci leer ba mu leer nañ ba ma leeral képp koo xam boo ko nëbbee yàlla rëbb na la kon léegi addis yooyu boo ko jëlee ak aay yii muy alxuraan ak sunna xanaa daana leeral ni aqiqa kon furuñu ko ci mbedd mi kon xam-xam tasawu furuñu ko ci mbedd mi beneen bi ma la ci doole mooy Abdullah ibn Abbas xanaa ko ne xam na ko radiyallahu anhu kooku li ñu defi woowoon ba mu ñëw mu ne ko ŋaawal jàng ñàngam mu yàgg ba tifli ci gémmiñ ga maa ngi ñaan yàlla dégg loolu alxuraan xam baat boobu la ko wax maa ngi ñaan yàlla dégg loolu alxuraan mooy fóoréew xeet bi dégg loola alxuraan. nee na ñaanam googu jural na ma ab aayaa ngi nii ci alxuraan. allahu lasi xalaqa sab'a samaawaati wa min al ardi mislahunna yatanazalu al amru baynahunna li taxlamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma aay boobu moo teg surtout talaax nee na dégg naa ci lool su ma ko nettali woon jullit ñi ñooy tàqale sama bopp ak sama baat defe ni génn naa lislaam te ci te dégg alxuraan moo ko dox kon xanaa kon ci biir alxuraan ci aqiqa ni ci la tasawuf ne xam-xam bi ñëpp jógewul am déet ankay ankay Abdoulaye Ibn Abbas bi mu daano Seydina Ali yi lu wax hmm. boo ma joxoon lu fees ñeent fukki giléem hmm. ma saraa faatiye lu ko fees da hmm. ngay wax ci yem wax yëpp ñu laaj ko xanaa kon yéen sëriñ yi fi yéen tamit dinañ la jagleel xam-xam moom jégleelu ñëpp mu ni déedéet yéen ahlul déggloo gum nu déggloo alxuraan rek ci lañ jëlee loolu. wallaahi xanaa kon boobu xam-xam kon. bu biiru bu nëbb boobu ci alxuraan la jógee. kon mooy tasawuf. Hmm. ndax dama la wax juróomi dee ba des ñeenti dee. mu des ñeenti yi. yi nag comme tasawuf ñoo ko andi. Hmm. faaw ma leeral source su tasawuf ba pare. Hmm. ba nga xam ne source su tasawuf mooy alxuraan ak sunna mii nga xam ne moo génnee source su sa loolu nañ ko xam. ba dañu naan seen gaa yaa ko wax déedéet. gaa ya dañoo déggee ci alxuraan lu gaa yëpp diggul. ni ko yonent bi daan defee naka jekk di ko beral ay gaay ñi ko attan. loolu nag boo gisee yonent bi daan ko def hmm. mooy am ñum tànn ku mel ni Abi Hurayra mi ma wax hmm. Abdullah ibn Abbas Sayyidina Abi karamallahu wajha Abu Bakr Siddiq léeg xamal la xam-xam bopp ñëpp duñ ko xam bokk ci xam-xamu Sénégal bi muy xamal ñëpp hmm. loolu kat da ci am digalu yàlla de yàlla programme noonu nii nga xam ne day am ñu nekk gaayu tasawuf te ñëpp duñ ko nekk lu ci rub loolu du lu bees naka jëkk lu am yonent bi da ko doon def ma jox la benn ma jox la ji ndax eh, leeral lu mel nii dafa baax bëgg buñ demee ci tafsir aaya bi nekk ci suutu maayda sun borom ne yonte bi salaa salaam rasul hmm. ma unzila ilayka min rabbika hmm. wa in lam tafhal hmm. fama ballaxta risalati wallahu yaxsimuka min annas inna allaha la yahdi alqawma alkafirin yow yonente bi na nga jottali li la sa borom wàcce ci yow mu jëm ci nit ñi bu ci desal dara ndax kan ñàkk matal la ab matal ne nag ñi jóg ngir gàllankoor la bu mu doon sa gàllankoor ndax yàllaa lay musalal boppam ci nit ñoon hmm. ndax yàlla kat du jubal pexem ku ko weddi hmm. gis nga aaya boobu tafsiru jalaal bi mu koy tafsir diglu yi may wax tafsiru jalaal hmm. tafsiru ruuxul bayaan yi tafsiru ahkaamal quraan bu ibnu arabil faqih tafsiru fasil ñeenti tafsir yëpp biñ cay dem ñoom dañoo wax lii nii lañ ko waxee dañ ne yonent bi sallallahu loolu ko yàlla wax na ko jottali ko dafa wax yi ci moom ñetti xeeti xam-xam hmm. ne ko benn bi hmm. na ko jottali ñépp ndax ñépp ko war a xam ndax mooy sareexa bi nu jaamu yàlla hmm. ne ko baneen bi xam-xamu xam aqiiqa la mooy tasawuf na nga xool kenn ku ne kem lam ca yàlloo ba jox ko ndax si gaa yi tulloo wunu waaw ah, xam nga siga 100 lim mën a jël bokkut ak siga boo xam ne ah, mën ci un siga xam nga li mën a jël mm-hmm. bokkut ak 18 siga defe naa li jël mm-hmm. nit ñi nag ni mm-hmm. na nga xam ne nag xooli nit ñi ak siini tolluwaay noonu la wutantee am naa sama tarifuun alxuraan ko wax mën ko nit ñi ne kenn ku ci ne kenn lam tollool ci xam-xam boobu nga di ko jox waaye xam-xam boobu du lu ñuy tasaareel ñëpp mooy xam-xam tasawuf bii ne ko ñetteelu xam-xam ne mooy bi nga xam ne alaam na kenn xam ci dara ndax sama diggante yow la war a yem bee tudd sareexa bee tudd xam-xam bee tudd xam-xamu sirul xadir Lagi yaa ngi dégg nii lañ ko waxee dan ni yonente bee wax ni hmm. nan dem ci ñeenti tafsir ma wax nag hmm. jalal ruhul bayaan yi ahkaamul quran tafsiru fasil ndax du wax isaaniwu hmm. yonente bi dane inna allaha taala anzala alayya salaasata hulum xelmun xelmun neen xam-xam boo xam ni mu ne ah, mu ni kóllërante nañ ci yàlla da ci kóllërante ak man xelmun unsila xaleyal xaxd fiihi an uxallima lil qaasi wal xaam waxil mun unsila xaleyal xaxd fiihi a ngi dégg an uqaddira bi wala ablu alayhi ila xawaasil ummati waxil mun ixtasani bihi li hilmihi wala yaqdiru ala xamlihi ñetti xeeti xam-xam wàcc na ci man xam-xam boo xam ni dañ ko wàcce ci man ku lërante ci ak man ma xamal ko ñëpp xaas ak xam xam-xam Sénégal bi ak xam-xam boo xam ni ki ko wàcc ci man da ciy kullalante ak man ma di ko nattal ñi kenn ko ne kem lañ ca tollool moo tax xawaasil umma ñi ko jagoo ci xeet rek dañ koy jox hmm. ak xam-xam boo xam ne rek moom daf ma koo jagleel sama diggante ak moom nag kenn wuri ci xam dara ñeenti tafsir yëpp ënd bi ruuxul bayaan yi moomu nag daal di beraat jeneen loo xam moom boo demee ci tafsiram ba tey ruuxul bayaan yi wax naa la ba tey ni moo tafsir alxuraan ci ñetti xaaj xaaj bi ne fukki téere muy fanweeri téere hmm. amul ko werante mbirum ruuxul bayaan yi ñëpp ko xam moom imaam Ruuhul Bayaan Ruuhul Bayaan yi boo demee ci tafsir ba moom bi muy tafsir fa awhaa ilaa abdihi maa awhaa mooy suma danaa fa radalaa fa kaana xaaba xawsayni aw adnaa fa awhaa ilaa a maa mooy ginnaaw rayaan nga bi mu demee hmm. suñu ma wax yu sama jaam ba la ma ko wax hmm. yaa ngi ma dégg foofu bi mu koy tafsir moom it mu leeralaa ko luy wane ni xam-xamu tasawuf bii ñuy wax xam-xam xaqiiqa loolu ci yonent bi la wàcc nekk jëkk moom moo ko doon doxal wàllu yu doon ko ca muy dox bul fàtte juróomi dee ak hmm. moom mu ni bi ñu firi fa aw xaa ila xam ne dani xaalal kii di bëgg a la hmm. laa sàkka moom amul sikk sàkk ci li mu wax yaqiin la hmm. ci lan innama uhiya ilayhi tilka laylati sallallahu taala alayhi wa sallam xala aqsaami nee na guddi googu moo rañaan yi yàlla wàcce na ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ñeenti xaaji xam-xam ñeent ñeenti xaaji xam-xam xismun addaaxu ilal kulli وهو الاحكام المصرحه خاج بو خامني دنج كو ديغال مو ووتي نييب داني خاج بو نا موي اتاي سري هاي امول كو وارا امتو نييب كو وارا خام نخ موي تخ ني مانا جام يالا وقسم ابداح الا القواسي هاغي يعني وهو المحارف الالهيه اقاج بو خامني dañ ne ko nag woo ci ñi ko jagoo rek. Hmm. ku ko ñi ko attan. Hmm. nee na boobu nag xam xam-xamu maarifatu billaahi. mooy hmm. maarifa ilaa maarifatu billaahi mooy xam-xam xam yàlla. ci yonent bi mu ne ko nag da nga koy jox ñi ko jagoo. ma ne imaam Ali yi dégg nga la mu ko ca jàngal ak ko ca wax ak yu mel moom. nee na wa qismun addaahu ilaa aqsil qawaasi wa ngiya ñu ne ko boobu nag mu ne alxaqaaqi wa rabbaani wa nataa'ijul xulubi shawqi ak xaaj boo xam ni ñi ngi koy jagleel aqsul qawaasi mooy tànneef yi tànneef ya boobu mooy ban mu ne boobu xam-xam nag mooy xam ko xaqiiqa xaqaa ixwarabaani mooy xam réalité yi mbiri yàlla ya mm-hmm. ak xam-xam ya nga xam ne ci cofeel goo am sa diggante ak sa boroom ci seey goo ci seey ci nga koy jële xam nga nu mel yegg ci yàlla ñaari xaaj la moo tax mu ni marifatu ni xaqaa ixwarabaani daa am lu ñu al wusuul am lu ñu tudd al wisaal xam nga luy wusuul mm-hmm. yegg ca xadra ba mm-hmm. ki àgg pare man entré ko ubbi bunti bi mu dugg abul kooku wusuul la def wisaal nag mooy ki nuy siteel biir palais bépp nga xam ne benn saal umpatu ko benn néeg umpatu àgg na ba ci biir néegu kilifa ko ko wisaal la def hmm. ñoom ñaar ñëpp a nga pare de waaye bokkul ñu fa nekk de a ngi dégg hmm. kooku mooy troisième étape xam-xam bi hmm. am nañu fay toll moo tax gars yi yàlla yi rawante ci biir yàlla mu ne waxis mun aaxar beneen xaaj ba nag baqiya maahu li kaw nii mimma qasamu law bi wa huwa sirrul lasi baynahu wa bayna Allah ak xaaj boo xam ne nag yàlla dani ko sama diggante yow lay des ndax secret la boo xam ne araam na benn mbindeef xam ci dara lu dul yàlla doo yonente bi doo ko xam maa ngi dégg moo tax ma daa wax naan bayni wa bayna Allahi sirrun ndox na sama diggante yàlla secret boo xam ni hmm. nee na laa yatluhu du ko jot mukk malakul muxarrab wala nabiyul mursal malaaka lu mu xeddi xeddi du ko xam nabiyul mursal lu mu xeddi xeddi du ko xam amul benn mbindeef bu ko mën a xam hmm. moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam lii ma wax nii nag ruuxul bayaan yi ma ko ci bi muy taf ci fa awxaa ila xam bi maa waxaa xanaa kon leeral naa ne la xam-xamu tasawuf kon hmm. ci alxuraan sunna la génne hmm. ñaata dee laa la waxoon ne moo am cinq juróom-ñeent am moo wax la ci cinq hmm. xam jot naa la jox cinq yi ci alxuraan awa man may itam laa la wax ak dee ngoo fay naka laa tasmul mawta ak dee ngoo allahu yatawaffa anfusa hiina mawtihaa ak dee ngoo wala tahsabanna llaziina qutiluu fii sabiilillaahi amwaatan ak dee ngoo kullu nafsin zaa'iqatul mawti ak dee ngoo du juróom xam nga day des ñeent kon ahlu tasawuf nag ñeent yi ñu ci dolli ak juróom yii mu doon neuf jàppal nag ba ki nekk nag ma wax la tur wi nga wutal ak i meloom ak ay explication nga xam ne ku ca toll ku nekk da nga xam ne bii dee nga toll tàmbali banque sa baaraam xam nga léegi ci njëkk nu mu tudd almawtul ahmar kon yeggagul ci kafaaniyal baax yi kafaaniyal baax yi maman samara ci koy firi balaa sañu dugg ci béy bi daa war a xam ñaata façon dee am yow xamoo ñaata façon dee am Sëñ Tuubaa ne du ma dee faaw rek nga tëb rek naan ay eh, gars yi naan dee kulli na ci nangam mooy erreur bi laan bëgg a te yow sa dee nag ak ak alxuraan ak sunna da ngaa xamul ñaata dee moo am ba maa maanaam firi na yow kii nga dee yow xamoo kii wax lu muy wax nga tëb tëb di wet lii mooy problème nit ñi na ko ñu njëkkanteeg waxtu wi nan njëkkanteeg waxtu wi ndax lépp mu jeex kon bàggal sa baaraam ndax fi ne xat na hmm. almawtul ahmar mooy dee bu xonq gi dee bu xonq wàññal ba mu yegg. <laughs> tax taxal te suuf ni ñu koy laa lay wax. Hmm. bu ci nekk am na istila. Hmm. almawtul ahmar neel déggu xonk yi neel benn. déggu xonk gi benn. almawtul azwad deux neel déggu ñuul gi. déggu ñuul gi ñaar. almawtul abyad mooy déggu weex gi trois. déggu weex gi trois. yaa ngi dégg. Hmm. almawtul axdar neel déggu weex gi quatre. déggu weex gi quatre. almawtul ixtiyaar yi mooy déewu tànn gi ñi nga xam ne coobaree muy cinq. muy cinq yaa ngi dégg. al mawtul azali mooy deewu cosaan gi deewu cosaan xanaa mooy juróom benn juróom benn al mawtul asqal mooy deewu ndaw gi muy ñaata juróom juróom juróom ñaar juróom ñaar set al mawtul xaarit mooy deeg yi gaar xanaa muy ñaata juróom ñett neuvième bi mooy mawtul mahnawi mooy deegu mahnaan xam nga waxtu wi daa gàtt hmm. leeral de yëpp du fi xaj da hmm. ngi dégg waaye mawtul mahnawi hmm. waxi sëñ tubaab yi ci la dugg mooy c'est minimum fi nga xam fi ngay taxaw tàmbalee dégg nag bayit bii loo gën a ñoqali na di ko a xam waaye lu mooy lii boko ko wàccee doo xam dara ci bayit bi xam nga lii mawtul maxnawi lu ma ñëw sax ci set wit yi wit yi waaye mawtul maxnawi rek laay ñëw ndax ci dana am beneen jotaay xam naa di waxtaanee xeeti dee yi ñi nga xam ne dañuy gëstu ci mbirum tasawuf hmm. ñu yàgg jàng téere yi imaam Ibn Arabi hmm. imaamul Junayd imaam Rafahi imaam Qasali hmm. ba ci ku ni Cheikh Abdul Xaadir Jilaani ñoom danañ wax yi danaa lañ sax sax ay ñaari téere yi imam ahmadou rafahi yi moo ko def mu mag ma hmm. radiyallahu anhu wàlli yu moom nga xaarif billahi ba hmm. xam naa sa boo moytu moom la sin fàllu tuddee sun imam bu baax bi imam ahmadou rafahi yi kooku jaloo rek ñëpp ko dégg hmm. am na téere bu mu bind tuddee ko xaalatu ahlul yi nañ ko wut am na beneen téere bu mu tuddee al burhanul mu ayyad gëstukat yi nañ ko wut wala ñu dem jël téere ibn arabi al-hatim bi mu tuddee al uxrawiyaat mooy alaaxira yu bari yi. Hmm. yaa ngi dégg Ibn Arabi ponkal ma foofu la a xóote. wala ñu xool téere bu tudd moo ko def. Hmm. xeeti mbéy yi ma wax bu ci nekk ak façon ak nam demee gëstukat yi nekk ci tas boobu nan xool téere yooyu. Hmm. ñi nga xam ne nag maa ñoom a yow xam naa gëstuwul ci bu ñu dajawaatee maa yow ma teqantal xeeti dee yooyu waaye nañ ñëw ci neuvième dee ji ndax kafaan yal baax yi ma war a sama daal mawtul mahnawi xam nga mooy ban baqaaul xabdi fi saatillahi mu ni jeex gi jàmm bi di jeex ci jëmm yàlla ji day dem ba du nekkati dee na amatul léegi bu jeexee ci jëmm yàlla ji hmm. léegi nag moom ak nekkam day compter ci nekku jëmm yàlla ji li fi jëmm yàlla jaa ngi fi rek kooku ak nekkam dafay nekk ndax daa jeex ci nekku aji nekk ji nga xam ne nekk amul foofu yam hmm. wa tawakkal alal aji allati laa yamuut hmm. daa jeex ci aji dund ji nga xam ne du faatu loolu nag lu kawee la waaye lu yomb a expliqué ci ñi ko xam ndax am na ci moo yoo xam ne doo ko mën a wax lu dul ne koy dund waaye naa ko mën a expliqué ci nit ki mën koo xam ki jeexi ci jëmu yàlla yi xam nga si xam nga jeexi ay xeet la mm-hmm. fanaaw am na fanaaw fi asmaa yi koo xam ne ci tur yi la jeex mm-hmm. wala wenn ci tur yi mm-hmm. xam ne fanaaw fi sifaati la def ci melo yi la jeex moo xam raxmaan wala xudduus wala mën naa nangam waaye ki jeex fillaahi nag ci turu za kooku day yóbbaale asmaa weeg sifaat ndax allahu moo moo moo moo méngoo asmaa weeg sifaat kooku essence bi feeg mi ngi fi dafiy ne yaa ngi dégg donte melo yëpp tur yi dañoo wutewul waaye xaali ñoo tolloowul gis nga moo tax sëñ bi nag turti anil mawti waaye baqaau laahi laahi abqaani yallaahu li wacci laahi li dox sama digg ak dee mooy saxuk allaahi ndax ci allaahu laa jeex yaa ngi dégg damma xayaat yi li xayaati laahi laahi lay wax allaahu daaxi la jiraan laahi waaye bëgg xam nga fu parle bi ne ñu bari dañuy dégg lu mel ni dugg ci buntu bokkaale fekk seen ñàkk xam nga ko toll xam nga luy bokkaale luy mooy jox àq yàlla mindeef yow mindeef ni nga jox àq yàlla mindeef wala yow mindeef yi ngay jéem a jox sa bopp àq yàlla loo xam ne yàlla laa ko yolloo nga jéem nga jox ko mindeef moo xam wax la moo xam jëf la moo xam place la wala yow mindeef yi nga jox ko sa bopp bokkaale la tifaaxan inna laa laa yaxfiru an yusraka bi inna shirka la zulmun asiim waaye jëmmi yàlla nag moom moom yàlla pouvoir bi mu feeñal ko ci mindeefam kooku dootul bokkaale yàlla ko def comprendre nga li ma la bokkaale ci mindeef lay jóg mindeef mi moo mën a bokkaale yàlla wala mindeef yu bokkaaleer ko yàlla waaye yàlla du bokkaale boppam tajjaliyaat la yàlla mu feeñ ci mindeefam nam ko soobee loolu bukkute bokkaale ndax effort bi du mindeef a ko def yàllaa ko def xoola damma xayaat yi tàppe na sama dund gi li xayaatillaahi ku ko def allah du moom moo ko def du nit ñi yàlla loolu loolu manifestation tajali la yaa ngi dégg te yàlla ne moo ne woon loolu du dem di ko def sa nurihimu ayaatinaa fil afaaqi wa fi anfusihim xataa yatabayyana a annahu al-haqq nun yàlla dañ dañ di wane sunuy kiimaan sunu yàlla ji ci ci mbindeefee gox goxaan yi waaye di ko wane sax ci seen jëm yi kon yàllaa koy wane ni ñu koy xamee mooy sañoon yi yàlla sañoon yi montagne nii daa feeñal yàlla déedéet déedéet waaye sañ ngeen yàllaa ci feeñ xoolal yàllaa sañ ne falamaa tajallaa rabbuhu lil jabali rabbu moo tax mooy juge bi. Mhm. yàlla ba mu feeñee ca doj ba kon yàlla moo def feeñ ji. mun na ko bis boo jéemoon a jagleel man gi nag yow bokkaale nga. ndax yaa ngi jéem a aj montagne mi ci àq yàlla ju mënut. waaye yàlla nag moo def tajalli ci moom moom mu def tanusulaat bi kon boobu yàlla moo ko def. Mhm. bokkut ak mbindeef mi. Mhm. sew sew bi ñu bari dañ koy jaawale. xam nga sañoo ni asawara yaa yàlla. déedéet bokkaale nga. sawara yi sañun ne maa hmm. kon bu amoon kàddu wax ko bokkaale na hmm. ak dégg hmm. waaye suñu borom te sawara sax feeñu na fa falamma min saati il waadil aymani fil buqaatil mubarakati min asagarati Musa, yaa Moussa inniya anna allah rabbul alamin bim mu gisee tàkk sawara si ne ñim àndal ma dem fee bokk ndax ma jaaru fa ndax sedd na wala fa jële faw xarit ñun itam wala mu yoon ba mu àggsee sawara la gis xam nga. Hmm. sawara si jim boppam moo am kàddu woo ko. ee eh yow Moussa mu jaaxle mu ne ko dama sawara de ee eh yow Moussa man maay yàlla inni ya am na laa woo ko maa làq ci sawara si man sawara si maay yàlla sa kon yàlla moo feeñ ci sawara si. Hmm. ne ko man yàlla nag maay sawara si kon yàlla sañ na ne maay sawara si ndax sañ naa fenki sawara si woowee ko boppam hmm. mbindeef fa sañut ne sawara si yàlla hmm. sawara si sañut ne maa yàlla hmm. waaye yàlla na moom amul ngànt ci loolu ndax dara jëmu ko tout ah, dara tëliwu ko ko yaa dégg loolu la ñu tuddee tajjag yàlla eh, istilaahaat yi nag tasawuf yow ku ko dundul xamoo ko jagoo woo ko da ngay teey te noppi dégg waaye dégg mbir xamoo nu mu demee ña koy wax xamoo fu ñu ko waxee nekk ngay dugg ci naan bokkaale ak nangam nan def attention Sëriñ Tuubaa na bokkaale lu bokk ci na bokkaale bara anil ilahu min shirkin wa min kulli nifaaqin wa sahaadati demin koo xam ni képp kuy bokkaale sa yàlla dàq na ko ci ki saw ñoñ du la jege mukk yaa man waqaa nii mushrikan aw mushrika la wax mushrikun aw mushrika kuy bokkaale ku góor ku jigéen sax nag ma ko dàqal ba dama jege daraam digawu ko kooku lu mu boobu boo ko xamul maanu ca. te téye ca tax nag taw yéen. kon gis nga neuvième dee boobu mooy mooy li ñu tuddee mawtun maxnawiya. mooy fanaawul xam bi fii saatillahi. neuvième boobu ngay taxaw nag. Hmm. tàmbalee comprendre dee gi Sëñ Tuubaa di wax ma misaal la ko sax ci wolof ñu tëj waxtaan hmm. suukar boo ko jëloon bekk suukar téye ko nii xam nga am na mi ngi dund. waaw suukar a ngi nii. nga xam ne lii suukar. nga teg fa tuut ndox. Hmm. nga jël suukar si tàbbal ci ndox mi. xam nga da nga koy séen muy seey. maa jeex. nga di ko séen muy seey. di seey di seey di seey ba jeex amatul xam nga jotoo suukar si. xam nga suukar si dee na. dee na waaye mi ngi dund laaj ma fu muy dund fu muy dund ci ndox mi ci dund ndox mi ci la dund xam nga ngay xam ni ngi dund mi ngi am. waaye ak amam dafa nekk ci biir amu ndox mi. li suukar di sax boo ko bëggoon a ñamaat. ñamal ndox mi xool. xam suukar la muy sax boo ndox mi sax kon bi nga ndox mi xam nga kon ngi nekk. waaye ci lu muy nekk daa nekkee ci nekkum ndox mi mhm. boo bëggoon suukar dara mhm. nga xam ne boo jotoon suukar sa nii da nga ko cay def rek mu suukar ko mhm. léegi boo jëlee ndox ma def ko ci mu kon suukar ma ngay liggéey lan doon liggéey waaye mi ngi koy liggéey ci biir ndox mi mu ne ndax moom ak dundam da koo seeyal ci biir ndox mi léegi kon léegi mi ngi dundee ci nekkum ndox mi léegi li fi ndox moom ma mi ngi dund suukar saa ngay dund suukar saa ngay dund lay mën a rey suukar sa lan la ne la mën a rey ndox ma rek ku mënta rey ndox ma mënoo rey suukar saa. fii ndox maa ngi am suukar saa ngi am. Hmm. ndax daa jeex ci ndox mi. tout à fait. kon kay ki jeex ci yàlla. ah. borom tuwaan ko moo tax nan tey te ndànk. Hmm. diggante yàlla ak Serigne Touba. Hmm. kenn ku ci mën a dugg amul kenn ku ko mën a xam it amul Serigne Touba. su demee ba la muy mujj a wax te mag la muy wax ñor ma ko. Ah, ok mag nag lu muy wax lu nekk la muy mujj wax ko gën a ñor. wallaahi képp ku mu sa wax ba jege sa diggante sa borom ci sa wax lu ca wérutoon na nga ko ci kon sëñ Tuubaa ba demee ba dara a lu kàddu nga mujj mu fekk delewaat wax ji ci xaatima du a te mooy mag mi te xam ne lu mu wax diggam ak boromam lu leer ne ak koo xamul waaye la fi gën a nekk te fi nekk ba ila abadin musaman yaa hmm. ko xaman koy xam ñi ko gisan koy gis ko ko ñi ko yëgul yëguñu ko ñi ko xamul xamuñu ko ñi ko dund ah, musuma ko dund ma ko nag amul du ak maadu ak léegi mosuma ko dund ma ko rek amul. ak mandu mëno dëkk 3e nek ñi ki dëkk 2e nga aña ma fi 3e ne 3e am ci immeuble bi te di 2e nan nako baye ah da xamne lu ci wañi sun pass amul nanu moytu nak nun talibi lu wañi sun pass lu señ tuwa wax deug la bu nu sik sak dara du fi jum mukk kan ka faña baxi mamad salmada wallahi o bi baqay amala li rek la ci mëna ene nak jotay ba xatna bu gën ko sara inshallah kon ci jub rek moy baxu serigne bi ñoko koy santé xam na li li li première partie bi wax deug yalla Serigne Saliou moom macha allah ci xam-xam bu yaatu bi mu mel na fu ne fu ne fu ne dafay jëlee bayit fu ne dafay jëlee aaya waaye li li muy wax rek ku ko xamul it xamoo ko waaye am na Serigne kàddu gu mujj bi. Euh, mooy sant Serigne Touba bu baax. Hmm. te li ñaan mu nangul nu te saxal nu ci dooni taalibe yéen ak Serigne Touba dundal nu ci rey nu ci rek dekkil nu ci. waaye di leen sant yéen waa Talibe TV. Hmm. ci jotaay yi muy am ak yéen te taalibe yi ak mbokk jullit yëpp di ko bégee di ci jariñu te loolu mooy njariñ li mooy li ñuy wax lépp liñ ci jublu mooy jariñ ci suñu bopp jariñ ci ku koy dégg mm. te saa su ne ñuy dajeeg mbokk taalibe yi mbokk julli yi wax njëriñu gi nii jëriñu jotaay di la sant lool yow bëgg Bàmba gaa ñi ne naay baral lu may ak yow <laughs> man lii man bi sax noonu koy bëgg ndax tubaarkàlla masha Allah kon yéen yàlla na yàlla dolli seen kàttan dolli seen i xéewal barkeel seen ub liggéey te mu dem ba doon ay télé yu mag a mag ñu yàgg koo àndi faaw ci sëriñ bi kon li ci rek sëriñ bi rek ñu ko fay lu ci dëng nu na ngi ñaan borom xam suñu borom boole jéggal alhamdulilah. macha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 yow tàggoo ak yow kaay ma wax la secret yi bañ yaa jabaru ñëw na wooteel 77 677 77 08